nanu fexe ba kenn ku ne ci nun góor góorlu ba bu ko yàlla di soxla woo ko fekk mu doon dëgg dëgg jullit yàlla nanu ko yàlla jàppandalal di fàttali sunu bopp di fàttali bokk yépp benn tomb boo xam ne lii defar suñuy diggante ci la bokk muy kenn ku ne fexe ba jariñ moroomam walla bokk di jariñ ay moroomam jaare ko ci jox ko jox ko nag suñ ko tuddee xel naa dem ca alal waaye li nit mën a joxe lu bari la kenn ku ci nekk ak fam ca toll am na ñoo xam ne lañu mën a joxe ci seenum xel lañ koy génnee xalaat yu rafet yoo xam ne kañ koy digal su ko toppee mën na ne coow ba àgg fa mu bëggoon a àgg am na ya ñu yàlla may xel moom nañ cay joxe te yàlla tax am na ñoo xam ne it yor nañu si tuut nañuy def lañ maam bañ tas yaakaar ak lum néew néew am na ñoo xam ne yàlla jox na leen xam-xam xam-xamub jàng nañ cay joxe waaye am nañu yàlla jox xarala itam xam-xam koo xam ne xarala la ñoom itam buñ ca joxee mën nañu dugg ci aaya boobu suñu borom di wax am na ñoo xam ne it munu munu si yor xam-xamub jàng walla xam-xamub xarala waaye seeni jaar-jaar moo leen may lañ fañ jaar ba jàll kuñ ca wax te bàyyiluñ la dara soo fa bëggee jaar danga xam na cay jaare waaye des na joxe it daan sa bakkan joxe ci sa daraja sa darajay bopp joo xam ne yàllaa ko dogal jaarale ko ci loxoy nit ñi waaye des na joxe it ci waxtu bàyyi waxtu yu bari ne ci yittey doomu aadama yi waaye it des na joxe ba aw nit jariñu te yëgoo ne joxe nga bu dee ci yite doomu aadama yi mbokk ngi nii moo xam ne daa dem fi barab rek fekk ñu ñu fa téye waaye atteeguñu leen mu dégg ca tur wu woo mu ne ña ko téye tur woowu de mënumaa dem ne ci bitti muy ne ci biir nañ ma nañ ma wax li ko fi indi lu mu doon su dee lu mu war a joxe ma joxe ko su dee dañ ko wëratee ñu ñu ñu bàyyi ma bàyyi ko mu dem ñu téye ma fi man ñu ne ko duñ la laaj dara dangay ànd ak moom dem ginnaaw sa sa yitte la kooke joxe na te ñam jox sax xamu leen mën nañ ko mën nañ ko bañ a xam mën na leen a bañ a gisati kon des na joxe ci waxtu des na joxe ci daraja des na joxe yit ci sa jëmmi bopp ji yi nga xam ne ay yoxo la walla ay tànk wala ay gët wala ay cër muy fexe ba loo jàpp ne nit yi teewoo na ko te mënu koo wax te ay cër di ko sottal jóg ak say cër sottalal ko ko te yàlla rek tax waaye nit it dana jox nit te yëgul na joxe na ñañ ko joxe yëgul ñu jox leen jox na leen mu dox ci yoon wi ba yàgg rek mu gis fa loo xam ne ku ko joggi mën na koo gaañ mu toppale ko gannaaw gis na ko mu bañ laal keneen kon joxe lu am solo la kenn ku nekk ak fam ki toll bunt bu ubbiku la boo xam ne ku ko tàmm ba tàmm ko bu joxee te kam yi jox xam ne jox na ko moom moo koy gën a bëgg ndax bànneex ba mu ciy yëg kim ko jox mën naa bañ a yëg ndax kam ko jox moom la mu ko jox rek la koy jox mu dem faji soxlaam waaye bànneex bi muy yëg ci joxe gi tàmm ma joxe moo koy tax a am mooy ñi nga xam ne léeg-léeg dañ lay jox ba noppi digaat la bëgg nga dellu si wat ñu joxaat la sëriñ bi mag bi sëriñ bu mag bi am na ku ko ne day ngoro ngoro ko yàgg lool booba lay soog a am ndigalul woote wala boog bu dul woote it mu leeral ndigal lim am ci ku ko topp mu wan la aw yoon am ku ne ko ak ngoroom daa yàgg ba amatut yaakaar loola mbamm mu rëy la woon ci yëf yi ndax ba mu ko laajee loola nu muy toll mu jox mu wax ko ko da koo toppatoo jox ko ko mu dem lijjanti ngoroom mu siiw lool ba am ñu naan waaw ndekete yëf yi takkal soxna da cee bokk ñooñu waroon nañoo fekk tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mii jàngalekat bu mag bi nga xam ne foo seen ab taal di tàkk ak gilint la gu ñu roccee ca taalam ba wane na ci misaal moo xam ne ba mu fiy nekk joxe na lu nekk jox na ku ne it te bokk yi ab joxekat dëgg-dëgg du xool ku ko bëgg ak ku ko bañ du xool ku koy tagg ak ku koy xarab walla xalab ñoom lay yamale wér na lool na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa sol solu jiital mbubb teg ca meneen am ko ne ko mi ci kaw day laa bëgg nga jox ma ko ndax yàgg na maa wut mbubb mu ni mel mënuma koo am mu ne ko futeet sànni ko ko sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk na ci li gën a rëy li mu jox xeetam bi nga xam ne fekk wuñu ko mooy lii mu fi bàyyi muy diine lislaam alxuraan nekk ca bopp ba nga xam ne yàlla wax na ko ci ne waxal nit ñi ne leen mankat kat ki ma leen di woo di leen ci waar di leen ci yee mooy du ma ne leen dem leen ma dikk waaye dama na leen ay ca leen dem mooy ku dégg ci man na jot li moroomam kon da doon joxe yàlla tàggatal ko bakkanam xamut luy lu neex ak lu naqari waaye saa bu waree wax wax bu waree jëf-jëf te kenn du jëf ci kanamam loo xam ne waroo koo jëf mu dala ca bàyyi ndax yow ay diw wala déet sallallahu alayhi wa sallam lim gën a jox xeet wi bokk na ca doon koo xam ne day joxañ lañu war a def ku ca jaar su ëllëgee am la nga bëgg waaye di joxoñ fa nga xam ne kenn waru fa jëm ba ku ko moytu it mucc sallallahu alayhi wa bokk yi nag joxe bu tuddee joxe dëgg-dëgg amut fu muy yem junj naa ko léegi kay joxe it du ko wutalu charte boo deful nangam dama la jox nangam déedéet waaye joxe kat dëgg-dëgg mooy koo xam ne daal lim yéene boppam la yéene ñëpp wala lim yéene ñëpp la ëpp moo ëpp lim yéene boppam xamut ku ko bañ ak ku ko bëgg ku koy sant ak ku koy xalab te bokk yi nag kenn ku nekk mën na koo xam ci boppam képp koo xam ne bëgg da koo dugg tàmbali koo yor na fexe ba rëcc ko ndax bu fexee ba bëgg jàpp ko léegi tey mu nay te ku nay di joxe am na ñoo xam ne nayuñu dañoo amul lu ñu joxe waaye ku yor moo tax ñuy wax ku nay ku yor am na xam-xam yi ma gisul lim léegi yor na ca benn waaye kenn mënut a fexe ba jot ca yàlla na ci yàlla musal bu ñu ko gënee jegeel si mu gën a yomb ba ku ne man ko mooy buñ ne la diw daf laa mere soo ko séenee rek jëkk jëkk koo muuñ mu xam ne jàmm rekk a ne fa yow su boobaa lu mu jàppoon mën naa wàññiku ba defare leen du jafe wala nga jékki-jékki rek dem ci kër diw wala barabub diw moo xam nga fekk ko fa wala fekku ko fa la gën nag mooy booy dem nga bañ ko koo yëgal ndax boo ko yégalee mën naa am mu am yitte te du la mën na wax ne am na yitte bu ma ju ma war a doxi waaye boo jékki-jékkee rek na xoos agsi soo ko fekkee baax na soo ko fekkut baax na diw ñëwoon na fi mën naa ëpp bu yool fuuf nekk ma maa ngi ñëw waaye bokk yi xool nit ki xool xool amoo loo ko jox nga ne ko yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla faj sa aajo joxe gënu koo féeti kaw sakkantumaa nag loo xam ne dara de ko saa waroon nga wàccal ko kon lu tee bokk yi ñun ñëpp ñu maase sóobu ci xat-xatloo ci buntu joxe xat-xatloo te kenn bañ a puus moroomam lu tee ñu xam lu ji njariñul joxe fas yéenee fexe ba am lu ñuy joxe te am na ci yuñ lim am yoo xam ne barab bi du mayee ñu di ko lim ndax bari na lool ba mën a bokk ci ñuy jariñ suñu xeet xeetu nit bokk ci ñiy jariñ liñ bokk muy diina ji bokk ci ñiy jariñ réew mi ñu bokk dëkkandoo bokk ci ñiy jariñ kenn ku nekk gox ba mu gën a jege ak ba ko gën a jege waaye nag bokk yi joxe dëgg-dëgg bala moo am njariñ yàlla di ko nangu mu am njariñ loo xam ne day jariñ ki ñu ko jox mu dem moom yool ba nekkal fa ka ko jox mooy mu fexe ba daan bakkanam ci njistal ci buy joxe daan bakkanam ci bëgguñu di ko dégg naan ab joxekat la waaye daan bakkamit bakkanamit ci tayal naan ñi ñëpp kenn mënu leen a jox ku leen jox léegi tey nga mel ni ñoom fexe daal ba la ngay doxe joxe sax dàkk feeg yaa ngi koy man lu mu néew néew ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na li gënal yàlla ci jëfi jàmm bi mooy loo xam ne moom la waaja moom la saxal ak lu mu néew néew ndax kat taw bi ñu gis nii li muy bari bari ay toq rek la ba ba muy wal bañ naan defar na dëkk sàngam ndax wal na ba dugg ci seen néeg ay toq la kon toq yu tëë dakk la mbokk ma ñaanoon mel ni mag ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla wërsëg ndax dëkk ba ma dëkk ku yorut doo fa wax mu ne ko wuy toq wala wuy yur yuri ba mu naree am ndimbal da ko ne ñaanal ma wuy maga ne ko nee ko wuy toq toq yu dijj sa jegee rek mu ne ko kon bokk ay ca mu ne ko moo gën de ndax xër xër moom xërsët rek wala mu yàq moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li gën ci li nit di def gënal yàlla mooy la muy def mu néew mu bari na fexe ba mu sax ku la séen daal na waaje ñëwati na am ci yow yaakaar ndax lu waaye joxe ci yow yu ma lim ak yi ma limul lum néew néew yàlla moo dàqaful ñëpp dàqandiwu ko kenn sax waxin rek la ndax ñii ji xam nañ ci dara wenn fepp wala ay fepp yu néew la ñuy def mu tooba mu génn léng génn fépp yoo xam ne lim ko dana jafe yàlla rek xam lim ba ñaata la te ka ko def ka ko joxe woon da koo joxe rek dénk ko yàlla dem xamut nu mu tëddee xamut daa jaaxaan xamut daa defeenu xamut daa tëddee bet xamut dafa taxaw waaye yàlla la teg ci loxoom yàlla nangu wuutu ko fa muy demee ko ñëw gis mu yokk ba ba muy ñor mu góob tàmbalee jariñoo di jariñ ñeneen li tax ma ne lu yomb la benn waaye ngi nii rek doyoon waar lool ba nit ñi xam ko mu romb bant boo banqaas boo xam ne daa law ba tiim yoon bi nga xam ne kuy dox guddi mën na ko bañ a gis bu waree dara mu ne bànqaas bii de du ma ko romb mukk te dindiwuma ko bala mu fay gaañ keneen ginnaaw man gis naa ko ba faatoo yàlla ne ko aljanna nga jëm mu ne ko nu mu mën a amee tàmbalee gis xéwal aljanna demaguñ ca waaye yi xéewal yi yi wane ne aljana am na mu ne lii de man moom de du jëfam wóor na ko du jëfam moom suñu boroom xamal ko ne ko bànqaas boo mas a romb mu tiim yoon bi mën a gaañ keneen nga dindi ko moo la may aljana kon boog dara mut ta xeeb ci lu baax ci alal joo mën a dimbale ay jaam yàlla xam-xam boo mën a joxe xel mu rafet moo mën a joxe waaye waxtu woo xam ne danga koy def ci dox ci yittey nit ñi yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musul ñu seytaane ki pakkam jëm ci liy musul seytaane ci seytaane ki pakkam nag bokk na ca ku sóobu yoonu jariñ mit ñi ak fànn gu mën a leen ta gu mën a tànn leen ci jariñe dana mën a bari ay gàllankoor yoo xam ne mën na koo tayalloo te bu ko tayalloo ñam àndal mën nañ ko raw waaye ku tayal di bëgg a dugg rek na gaaw na bëreet def la mu bëgg a def gaaw ndax seytaanee fa taxawoon yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin